الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو بي تي بي جسان فيدو بي مبوك جلدني مبوك تالبي نيجي نيو نك تورم اك جمم وايا دي جيتال سي العامة مو شيخ محمد الماحي ابن الشيخ ابراهيم ابن حاج عبد الله نيس الكبير سنكون نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو waaye xaasatan nag ci ki nga xam ne moom la ñu yàlla tànnal te bàyyi daf doon wax ne ca tànn ba ne yow yàlla li ya shaaban fudla wa li min kulli cheyin xayrahu wa kulli yow yàlla lépp looy joxe tànnal la ca gën la ca gën a rafet la ca gën a neex la ca gën a baax nga cëralee ma ko man Cheikh Ibrahim moo tax mu ne cëram taalibeem lahaa xisrun ولب ولب لب بل لب لب مع دعائي من باي نينا ترب طالبهم du xottu waaye du xollit waaye sax du ñam wa waaye saal ba nga xam ne moo war a meññ garab ga bàyyi moonu loolu mooy suma ci rek taalibe moo mu ne suma ta àndandoor man maa leen tànn fa yàlla moo mu ne subatu àndoo boo gis ci yàlla rek daf at bu àndoo boo gis rek dafay jeex waaye ba mu des ci yàlla ndax wa nasax maa fi sudurihim min xillin iqwanan ala sururin mutaqabilin mu ne waxtu wi nga xamee ne dem nañ ba dajaloo ba bokk lal bay jàkkaarloo mu ne suñ gisee rek muuñ rek dañuy reye rek nga xam ne loolu nag suñ am suñ ko amee ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñooñu ko may kooku nag mooy kenn ci ñun mu cheikh mahamadul makki cheikh ibrahima ñas ata allahu baqaahu lu tax ma ne yàlla boo ñu tànnal cheikh mahamadul makki cheikh ibrahima ñas góor ñi yëpp dañ fee ne ñun ñu tànn ko ne ko yaa ñu doy góor ñëpp dañ fee ne wala sëriñ si yëpp nekk fii ñu tànn ko ne ko yow yaay suñ sëriñ sëriñ googu nag mu ngi ñuy jëriñ ndax lépp loo xam ne sëriñ bi ñëw nga ci moom ubalut kenn buntu kon chiinam googu nag mu ngi sës na ci njaboot gi waaye njaboot gi itamit sës nañ ci sëriñ bi waaye raag sëriñ googu itamit mu ngi jëriñ ndax waxtu mawlitee mu neex ci suñ xol waxtu wuñ ko gisee bëgg loolu rek doy na mu ne waaye jiim ak sëriñ ga mu ngi ñuy jëriñ ndax lan jëriñ nañu mu ngi ñuy ràññalee lu ñuy réer ca raaga waaye jiim gi itamit mu ngi ñuy jëriñ mu ngi ñuy jëriñ ci zaahir ndax taalibe Cheikh Ibrahim warta sakku dara lu dul dund ak roxam gi kon su ko yàlla boolee ki nga xam ne moo yore ndox mu neex mii nga xam ne mooy roose roxam gi kon kooku daf ko war a sante da ko war di ñaanal yàlla kon ñun ñëpp nañ ñaanal yàlla Cheikh Mahamadul Makki yàlla guddal fanam wéral cëram euh, ñu ngi ndokkeel waa ahbaabu cheikh fédération nga xam ne ñoom ñoo initié tey ñoo oote jotaay bii waaye damay wax ne lépp doom ju dox ju ne màgg la ndeyam bëgg ci moom su màggee muy dawantu mu xool ko di ree waaye su màggee ba pare tamit bëgg na ci moom njëriñ alhamdulillah ku nekk xam na ne xàndoo ci yàlla rek moo am solo waye ku ne xam na ne itamit liggéeyal yàlla rek mo am solo ku ne xam na ne itamit tan nit yàlla ànd ak mom rek mo am solo li tax ma wax lolu moy ziyara bi tay ñuy amal fam déparé hon ku ne xam nako ci aw neek la déparé won kana kon da fay niro ak la bàyyi waxon ci neek ba ne yéen a ngi nii tey dund jafe leen waaye bés a ngi jot nit dana xenul ñam di ko tuur ba yéeg xari di ko njëkkalante mag ñu ne ba leen ba leen bàyyi di wax loolu dund jafe woon na waaye neexutoon a gëm mu ne waaye biñ demee ba jamono ñëw xam nañ na la leen bàyyi waxoon yépp am na kon ñu ni tamit biñ déparé ci néeg ci ñaari nit wala ñetti nit alhamdulilah ñu yóbbu ko kawoon tey ñu ngi fii ci markaz bii nga xam ne mooy daaru rahmati daaru raxmati nag lu muy firi mooy kër ak te ñun ñëpp yërmande yàlla rek lañ bëgg te kon suñ bëggee ngërmandeel yàlla nag wala yërmande yàlla suñ ko bëggee dañ ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim ndax moom rek lañ gis ne mu ne inni rahmaniyatullahi ànd man uhibbu man maa yërmande ak yàlla si ki ma bëgg kon nag ñu ngi ndokkeel waa fédération ahbabu cheikh bi nga xam ne oyusi nañ oote bi oo nañ leen ci yàlla waaye ñoom ñoo oote waaye ñoo oyusi ñoo ñoo oyusi tamit kon dañuy def lu gaaw rek ñu dugg ci conférence bi ndax temps amut te ku ne xam ne ne asamaan si neexul waaye ku ne xam ne ne itamit dañoo nit ñi bàyyi nañ seen soxla yi ñëw teew waaye lu mën a xew rek incha allahu mbooloo Cheikh Ibrahim moom jëriñ luy jëriñ nit ñi rek moo fa war a jógee waaye nit war waru sololoo looloo waral ñu tànn kenn ci ndawu Cheikh Ibrahima yi toujours dama koy wax ne nit ñi la koo xam ne ku soo ko xamul sax da koy lor ngir oyofam waye ngir xam-xamam waye ngir deggum waye ngir fasahatum waye ngir nim koy joxe te amul ci ben jeune amul ci dara lu mu soxla amul ben ben maqam bu mu ci ut koku nak kenn la ci njabot gi moy haji abdullah Aydara As mi toog nga xamne mom lañ àndatoon daw ci conférence bi ci talibé nan la wara bindo lan moy jikko talibé ren nak ñu ànd ak mom ci lan moy taxaway Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim ila Zenesh ban ban taxaway la bay am ci jeunesse bi te lolu amna solo ndax san jeunesse bi fum nek ni nii gëlëm nañ xif nañ mar nañ taraf tarafle nañ li len war nak moy ne ñu ut ku len bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala رضي الله عن قطب المكتوم وبرزخ المكنون وخاتم المحمد المعلوم سيدنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني وارضى التام عن صاحب الفيضة العليا سعادة الأنام مولانا الحاج إبراهيم نياس وبعد قناه بن sante الله جلت ci صلى الله عليه وسلم di ñaan ngërmaane yàlla yàlla bu mu dañ di dotteeku ci njabootam ak i saxaabaam ak i xulafaam cheikh ahmed tijaani ak mawlana cheikh ibrahima ñas radiallahu anhuma ñu ngi nuyoo nuyoob lislaam muy assalaamu aleykum wa di sant yàlla ci jotaay bu tedd bi ak li waral jotaay bi comme ni ko cheikh makkilo waxee léegi ni xam ne ay taaliba yu dajee ngir ziyaara seen si ngir amee ci moom yokkute ngir amee ci moom tëbb waaye ngir feddali kóllëre googu nga xam ne dara waralut ko ludut yàlla bàyyi ñis radiallahu anhu da daan wax ne ziyaara lim làmboo dafa bari ndax waxtuwoo ziyaara nit yàlla amee nga ci ziyaadatu muy ndollal te booy dellu danga ci amee siyaadatu muy mujj nekk di sang kon amut benn ziyaara boo xam ne nit dina ko def muy perte walla amut benn ziyaara boo xam ne nit dina ko def lu dul na am na njëriñ loo xam ne dina xam ne lii maa ngi ko jëlee ci ziyaara boobu doyoon na ci rek yonantu bi salallahu alayhi wa sallam ni mu wax ne nit ku jug di ziyaare ji niti yàlla te dara waralu ko lu dul yàlla mu ne malaaka yi ñu ngi lay gàttandu di la wax ne tibta wa taaba mam chaaka wa taabat la kal janna yow mii dox de ku tey nga waaye la ngay dox lu tey la waaye ajjana tey na ñeel la rawatina ziyaare nit koo xam ne wilaayatoom moo njëkk feeñ ak jëmmi zahiram muy cheikh Mouhamadul Makki ibnu Mawlana cheikh Ibrahim radiallahu nga xam ne Baye Niass radiallahu moo seede woon ci ay njabootam ne ñaan na leen yàlla ñii ay waliyu yàlla te yàlla nangul na ko ñaan googu te fekk boobu ñoom ñu ngi ci xaybu kon koo xam ne wilaayatoom moo njëkk feeñ ak jëmmi zaahiram kon dëgg-dëgg kooku boo dajee ngir ziyaara ko kon da ngay sant yàlla xam ne am nga lu rëy ngir ne yàlla may ne la nga ziyaare nit yàlla cheikh na ahmed tijaani radiallahu anhu dañ koo laaj gannaaw farata ban jëf moo gën a màgg mu ne abi juhayfa laajoon na aliin ibnu abi taalib laaj boobu aliin tontu ko na ko aljuluusu bayna yaday waliyi qad raxal bashaati mu toog ci roon waliyu yàlla diit bu muy rattee gàttam moo gën ci nit ki euh, bépp jaamu yàlla boo xam ne def na ko muy jaamu yàlla boo xam ne naafile la kon nga xamee ci ne toog dend ak nit yàlla ngene lim làmboo kenn xamul num toll kon bu ay taalibe dajee ngir ziyaare seeni sëriñ kon dañuy sant yàlla bu baax te xam ne loolu nga xam ne moo nekkoon seen namm namm yàlla may na leen ko muy ziyaadatu waaye muy siyaadatu di nuyu sëriñ bi cheikh ibrahim ibnu cheikh ahmed al tidiane yi mi nga xam ne e, ci oyofal boppam moo tax ñun biñ duggee gisuñ ko te am naa yaakaar ne mbooloo mi ñu bari gisuñ ko ndax bu toogee ci ginnaaw fee lépp tawaadoo la doon ne ci baayam doon nekku ci maamam Mawlana Cheikh Ibrahim waaye foofu du palaasam palaasam mooy ci kaw mi nasa bii nii ngir nit ñi xool ko mën a ame ci xool googu ñu koy xool ay tëbb mën a amee ci xool googu ñu koy xool ay yokkute kon jotaay bi ziyaara moo ko waral ahbab Cheikh Mouhamadul Makki daje ngir ziyaara seen sëriñ cheikh Mouhamadul Makki ibnu Mawlana cheikh Ibrahim radiallahu anhu moomu nga xam ne amul sikk ne boo ko ziyaara ziyaara nga bàyyi ñes radiallahu anhu ngir li Maalaaj Abdoulaye waxoon ne doomam dañ naan du mooma te yàlla may na ko moom cheikh Mouhamadul Makki gannaaw bu mu nekkee doomi cheikh Ibrahim làmboo lépp lu doomi cheikh Ibrahim di làmboo yàlla may na ko mu nekk chebiha cheikhi ci boo ko xoolee rek gis bàyyi ci moom ci xarxanamam ci kàddoom ci doxam ci jëfam kon loolu it sant yàlla la ci wane ne waxtu wuñ ko ziyaara su nangoo ziyaara boobu rek mooy ne Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu nangu na ziyaara boobu te Baye radiallahu anhu wax na ne ziyaara nit yàlla yu ragal yàlla yooyu mu ne ni pomaat di seddale métti métti mu ne noonu la ziyaara nit yàlla yooyu di seddale méttiti xolab doomi aadama waaye noonu lay seddale bépp jafe-jafe boo xam ne doomi aadama am na ko ñu ngi ñaan yàlla ziyaara bi yàlla nay sax daayiman njëriñ li ci ne yàlla nañ koy gis daayiman ndax njëriñ yi neen la cheikh na ahmad tijaani radiallahu anhu wax na ne taalibe bu dëkkeek sëriñam ci dëkk warta ñetti fant ziyaarewut sëriñ bi su ko deful na yees lu jaat su ak mom rew tok lu man ñetti weer te ziare wu ko na dem yeesluwaat su ak mom jamono ju ñi dund mu ne toog lu mat at te ziare wu mu na dem yeesluwaat lépp na ngir feñal ngëneeli ziaré bi nga xamne talibé dina ko am ci ron sëriñam ta bay radallahu anhu wax nañu jeriñal tok ci sa sëriñ wax na ne wa qad tafuusu minhu bil adwa wa hiya dhabitatun inda rijaali intabe mu ne da ci amee mu wàll la nga mujj nekk di nit yàlla te mu ne wàlle googu nit yàlla yi di wàlle nit ki ba mu nekk nit yàlla loolu lu wér la ci gaay ña nga xam ne xam nañ yàlla feneen Baay radiyallahu waxaat ko ne waxtu woo dend ak nit yàlla buy def taxaquq ci xaal bu mu mën di doon ci yàlla du ko éegee ci maqaama bi mu mën di doon bàyyi mu ne lam yaxloo xaadiroo minhu ña toog ak moom duñ sooy ci éegee boobu yàlla di éegee nit yàlla boobu ñoom it dinañ ci amee yàlla éegee leen kon ngëneel loolu rek doyan na nit ñi bàyyi seeni itte ngir ñëw ci ziyaara bi li ñuy waxtaanloo loo nag nga xam ne Cheikh Mouhamadul Makki loo wax na ko léegi muy thème bu am solo muy Baay Ñas ak ndaw yi Baay radiyallahu anhu yépp moo nekkoon ndaw yi bañ na ko ba bi muy wax ana fan lay jele ñu wa top ana fan lay jele ay ndaw lo xon wax na hadha mizahum wa huwa jiddun faman lana bi fityan sidqin yasjuduuna li madhari bay mo ne li ma wax de dafa nuru kaf waye lu dëggu la ci man ana fan lay jele ay ndaw yu dëggu yo xamne dinañ ànd liggéeyal yàlla kon nga gis na cheikh ibrahim bi mi ut ay ndaw la doon ut waaye yan ndaw la Cheikh Ibrahim doon ut ndaw yoo xam ne ndaw yu dëgg lañ moo tax bi muy melal ñu ko uyit def na yu xaadiruni fityaanu sidqin qad axlasu ila allahi qasdan lan namuta la naxya ndaw yi nga xam ne ñoo toogaaleeg man ñoo ànd ak man Mawlaana Cheikh Ibrahim radiallahu mooy ndaw yooyu nga xam ne jeex nañ ci yàlla ba egg ci doyoog sell foo xam ne lan namuta wala naxya xàmmeetuñ dund xàmmeetuñ dee ngir jeex guñ jeex ci yàlla egg nañ ci yàlla foo xam ne seen fanaaw notul seen baqaaw seen baqaaw notul seen fanaaw kon nga gis ne ndaw yi dañoo yàgg itteel Cheikh Ibrahim wala Cheikh Ibrahim itteem ci ndaw yi dafa yàgg ba moo waral jamono bu ne ndaw yi la doon wëri ngir xam ne ne ëllëg gune mi ngi aju ci ndaw yi te ndaw mooy barke dundu moo tax bàyyi bindona anhu bindoon na ay ndaw wala bindoon di xamal ndaw yi ne leen waalamu anna barakatal umri fi asri shababi xam leen ne barke dundu mi ngi ci jamonoy ndaw képp koo xam ne jamonoy ndaw raw na la mu la xamal ne lépp raw la wal maru ida ahaba cheyan falyatlubhu fi shababihi nit ki bu bëggee dara mu ne na ko sàkku ci jamonoy ndaw waxtu ko sàkku ci jamonoy ndaw ba jamonoy ndaw raw ko mu ne fatahu kullu shay'in xamal na kooku lépp raw na kon nga gis ne ndaw yi eggoon nañ ci doyo boo xam ne ci Mawlaana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu jamono bu ne da daan bind ngir wane ana fan laay jëlee ndaw yi waaye ngir wan ndaw yi jubukaay boo xam ne buñ ci tegewee bu boobaa dinañ jub jubukaay boo xam ne buñ ci tegee bu boobaa dinañ mën a nekk yaakaar boo xam ne ëllëg Cheikh Ibrahim radiallahu anhu xolam ak xelam dina dal ci ndaw yooyu noonu moo waral ci Koosi 1922 nga xam ne ci la Maalaaj Abdoulaye génn àdduna bàyyi di jàngale ci darsam boobu nga xam ne ñi nekk magi pays bi booba ñoom lañ doon ooyee ndaw ku ci mel ñoom Seydi Aliou sise ku ci mel ñoom Serigne Mbaye Mbaye Niass ak ñeneen ak ñeneen ñoom sëñ Ousmane Ndiaye ñoom maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñëpp nga gis ne Baye mu ngi leen doon tàggat ngir ëllëg ñi taxawee taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxawee bi leeni Baye di tagg def na ab fitiyaanu hada darsi fuqtum afadila e yéen ndaw yi nga xam ne yéen a nekk ci dars bii di jàng ma leen di jàngal te booba kilee leen jàngal ci at yi nga xam ne ci la arab tënk ak ndaw at yooyu moom la am ndax boobu ñaar fukki at ak ñaar la am moom Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo leen doon jàngal te ak asuru shababa dem na ba egg ci nit ki am ñeent fukki at kon booba ba muy am ñaar fukki at ak ñaar ci luñ mën a nattale ci zahir ndaw la woon ànd ak na Cheikh Ibrahim jaarut ci ndaw ndax qad tamba fathi inda mahdi wa qad anat jamiu rijalil ghaybi taxta qadaayi waaye adiya ci mellal ndaw la woon ñim doon jàngal ñu ci ëpp moo leen magoon ñii ñoo tolloog moom at ñii magee ko ay at yu néew moom Cheikh Ibrahima mu naan leen ee eh, ndaw yi nga xam ne yéen nekk ci dars bii di jàng fuqtum afadila xam leen na bés a ngi ñëw ngeen raw seeni maas te li leen ko moy mooy ngëneel ak ànd ak man toog ci darsu bi nga xam ne moom ngeen jànge li tax tani su jéem leen a góorlu ci dars bi ana alfiraqi masaila mboolem masail yoo xam ne ëllëg dinañ ko soxla pour mën koo jëriñoo yéen ngeen fexe ba fàggu ko ci dars bii nga xam ne moom laa leen di jàngal waaye laa Mawlaana Cheikh Ibrahim bàyyiwut leen woon benn fànn ndax mboolem funuun la doon jàngale moo tax mu wax leen ne leen bu leen fàtte tawxidu rabbina wéetal suñ borom muy yàlla muy tawxid man képp koo xam ne réeree nga tawxid qad jahila rahmanu man kaana jahila ku réeree tawxid rek mooy ne yow réeree nga yàlla mu ne wala tahmilu fiqhan bu leen sàgganee xam-xamu fiq mu ne képp ku ko sàgganee rek yu addu min al fusaaqi koko nona dañ koy konté ci ñi nga xam ay fasikh lañ nga gis ne it ci ca bé nak téeréem ba tay 1921 muy roh la dab fekk baye ma ngi dundu cheikh ibrahim radhiyallahu anhu ma ngi cey waxat hasil uluman arbaan dha salik yow mi sobu jema la fexe ba gorel ñent xam xam-xam yi ba jojitu awwalaha awaluha rabbil malik jema la xam yàlla mi nga xamne ne moo lépp waye ñaarel bi nga xam maa yuallaqu ala al ibadat nga xam li aju ci jaamu yàlla te lolu moy fiq bàyyi muna ne fa daaka taxaquq bu boba nak ngay doga am haqiqa te moy lan moy nit ki tànk amut shariatu ak haqiqa rek matut motax tax bàyyi na innama alkaamilu man qad jamaa bayna al-maqamayn fa daaka man saa ki taxé dal mooy ki mat ki mat mooy ki boole ñaari muy sharia ak xaqiqa moo tax bi muy jàngal ñi darsi mu ne fexe leen ba bu leen sàgganee tawxidu rabbina wéetal yàlla te loolu mooy xaqiqa képp koo xam ne réeree nga yàlla rek moo ne amu tawxid mu tegal leen ci ne leen bu leen sàgganee fiq ngir lan képp koo xam ne fiq rek la am te xamut yàlla kooku faasix la comme ni ko imaam Malik waxoon ne képp koo xam ne tasawuf la bila tafaquhin mu ne kooka faqad tafasaqa wa man tafaqa bila tasawufin faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa képp koo xam ne boole nga ñaar yooyu yow yaay ki matal bàyyi di ko dénk ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ndaw ci jamono boobu mu tegal leen ci ne leen bu leen sàgganee benn xam-xam ndax xam-xam bu mu mën di doon rek bës dina ñëw ngeen soxla mu ne bu leen sàgganee xam-xam yi tawxiid ndax ki amul xam-xami tawhid waxtu wax joté bam mu bëgg wax mu ne bu amul xam-xami tawhid ana nan lay wax xam-xami nahwu ana nan lay waxé mu ne bu len sagene xam xam-xami hisab ndax bés bo tollé ci konté bo xamul nu ñuy konté bu boba da nga joom mu ne bu len sagene alquran ndax amul malaz banex bo xamné modak alquranul karim nga gis na kon Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu loolu la doon wax ndaw yi nga xam ne ñoom la doon jàngal waaye appel boobu mi ngi continuer jëm ci mboole mi ndaw yi rawatina ndaw loo xam ne mi ngi aju ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ngir ne ñoom seeni itte lépp mooy ngir ne ñoom seeni itte lépp mooy fexe ba ëllëg ndaw yooyu mu defar ñu mën a defar yeneen i ndaw ñooñu mën a defar ñeneen ba mission bi di continuer Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wax na ci bi muy dénk ay ndaw ci jotaay yi nga xam ne moom la daan def ci gàmmu nga xam ne waxtu ne suba la gàmmu maharajaan bi nga xam ne da daan encourager ndaw yi ci di leen di bindloo ay xutab ñiy bind ay discours di ko liir mu leen di jox ay cadeau ay jawaayis ku ne bàyyi lëng la bàyyi photo la euh, wane mbégteem ci yow ñaana la yàlla ci yooyu noonu bàyyi da ci daan def discours boo xam ne da ko daan jëmale ci ndaw yi bokkoon na ci discours bu siiw bi nga xam ne moom la doo wax naan ndaw yu ne nañ xam ne ñoom ñooy avenir yi ëllëg waaye ndax ndaw yëpp ñooy avenir yi ëllëg wala bàyyi mu ne déedéet du ndaw yëpp yan ndaw ñoo nekk avenir yi ëllëg mu ne mooy ndaw yi nga xamante ne ni am nañ xam-xam am nañ culture am nañ jikko yu rafet am nañ itte ju kawe bàyyi mu ne ñoñu ñoy mustaqbali ëllëg fa inna mustaqbal kulli watanin innama yatawaqafu ala shababihi lakin la ala kulli shubani avenir rew réew mu ne mu ne mu ngi aju ci ndaw yi waaye du ndaw yeb yan ndaw bal ala shabab al mustaqafina ذوي الاخلاق الحميده والهمم العاليه ndaw yooyu nga xam ne dañoo am xam-xam am saqaafa muy culture ci àdduna bi ndaw yooyu nga xam ne dañoo am jikko yu rafet waaye ndaw yooyu nga xam ne dañoo am it ju kawe bàyyi mu ne ndaw yooyu ñooy yaakaari ëllëg waaye e, du ndaw lu ne ndaw yooyu nag moom la bàyyi doo wax naan fa jiddu wajtahidu fi tahsilil ulumi na ngeen yëkkati seeni itte gën a góorgóorlu ci fàggu xam-xam bàyyi mu ne la du xam-xam yi fiq wala nangam rek mu ne fa xasbu waaye maa ngi xaar ci yéen lu ëpp loolu noonu du xam-xam boo xam ne day aju ci sharia toog eh, ay yeneen ak yeneen bàyyi mu ne fa xasbu maa ngi xaar ci yéen lu ëpp loolu dem na ba mu yàgg mu ne shaariku ila man taraqat himamum fi kesu esraaril kaw ne jëm leen a góorgóorlu ba bokk ci ñi xam ne seeni itte egg na foo xam ne ëllëg ñoom dañuy uññi asraarul kaw ni dinañ dem ba génnee ay xam-xam yoo xam ne secret la ci kawnu bi ndax amul dara lu yàlla bind lu dul yàlla daxañ na ci mbóotam ñu fexe ba uññi mbóoti yàlla yi ci kawnoom bi ngir mën cee soppandiku ci loo xam ne nit ki dina ko jëriñoo loolu mu ngi dëppoo xam-xami science ba léegi science mu ngi génnee xam-xam yoo xam ne ci jamono ju njëkk dañoo waxoon ne mënta ne waaye te ba léegi science lañ koy génnee ñu doog a xam ne mi ngi mën naa ne moo tax Baye waxoon na kon jéem leen a góorgóorlu fexe ba luñ ne mënta ne ngeen neel ko waaye na tabaxu ci xam-xam moo waral lettre bi nga xam ne moom la bindoon doomam yi nga xam ne ñoom la ebaloon ñu demoon Qahira di jàngi te ki ñuy defal ziyaara bi tey mu Cheikh Mouhamadul Makki bokkoon ci mbooloo moomu bàyyi doon leen wax naan leen na góor góorgóorlu ci jéem a xam xam-xam yépp wal taalamu waalamu wa luzuma ma la yalzamu mu ne jéem leen a jàng te xam su ngeen xamee ngeen jëfee li ngeen xam ba pare di ko jàngale waaye jéem leen a bokk ci ñi nga xam ne lépp luñ ne mënta ne te mën a ne rek saxal leen ne mën naa ne waaye loola ci li tabaxu ci xam-xam lay tabaxu ba xam ne mën naa ne loolu mu dénkoon ay njabootam loolu la dénkoon euh, mbooleem taalibe yi loolu la dénkiit mbooleem yi ndaw yi ndax bi sifa am Cheikh Ibrahim dafa yaatu woon ngir ñëpp wax na feneen di ñaax ndaw yi naan abnaa i abnaa ixwati ahlul madarasa min yi madarisi aruni xabasa yéen samay doom yéen samay doomi mbokk yéen ñi nekk ci bërëb yii sàkkoo xam-xam di jànge bàyyi mu ne fexe leen ba won leen ma lu may sawarloo ak luy yokk sama yaakaar ci yéen ci bërëb yi nga xam ne yéen fa nekk di jànge kon jamono bu ne mi ngi doon xaar lu ko sawarloo ak lu yokk yaakaaram ci ndaw yi te yaakaaram ci ndaw yi tënku ko ci ndaw yi ànd ak moom waaye da koo tinki mu jëm ci mboole mi ndaw ndax fii ci mahad haj abdullahi bàyyi mus naa wax ne nañ ko indil ki raw ci école bi mu décoré rek ndaxte ki raw ci école bi du taalibe nit ñi xaw a saaxarlu yooyu bàyyi ne leen dama ne ngeen seetal ma ki raw ngeen indil ma ko ma jox ko jaayisa décoré ko mooy ko bourse mu jàng ñi ñëw na ko kooku du taalibe bàyyi mu ne waxuma leen lu mu doon man li ma itteel mooy ñëpp xam su ñëpp xamee rek naxe jeex man loolu rek ka ma itteel mooy ñëpp xam bu ñëpp xamee naxe jeex mu kooku ñu indoon moo nekk oustaz Mor Niang bàyyi jox ko ay jaayisa bi muy jàngi bàyyi moo ko booleeg ay doomam ñu dem jàngi ji suudaan continué dem taayira ba mu am xam-xam ba ëlbatiku nekk jàngalekat ba tey ci jamono jii ñu toll moom moomu nga xam ne bi bàyyi ne indil leen ma ki raw ma décoore ko duutoon taalibe tey moom moo jiite fédération ansaaru din ci ndar jiite taalibe bàyyi yëpp te li tax mu nangul bàyyi mooy xam na ne ni bàyyi meloon ci xam-xam ak ni ko xam-xam itteelee bu demee ba xoolu ci doom jum jur xoolu ci taalibe bu ànd ak moom waaye mu xool ne moom xam-xama ko ñor ngir bu ñëpp xamee naxa jeex mu xam ne kii nii boppam taxu koo jug waaye ñëpp xam moo ko tax a jug loolu moo ko mujj soppi gannaaw bu mu jàngee ba am xam-xam kenn forcé wu ko mu soppeeku mujj nekk di taalibe Baay Ñas ba jiite ansaaru diin bi nga xam ne moo nekk ndar te gis na kon baay jamono bu ne lam doon wax ndaw yi wan leen ma lu ma sawarloo lu yokk sama yaakaar ci yéen loolu moo nekkoon itteem ci ndaw yépp wax na feneen ci beneen leetaram ne antum ayuha shababa eeyeen ndaw yi xam leen ne amaluna maqudatun fiikum xatta tuqimu ma uwija fi diinina algarai wa fi watanina almahbubi eeyeen ndaw yi sama yaakaar yépp maa ngi ko wékk ci yéen ba li ñuy xaar ci yéen ngeen mën koo matal li diina ji di xaar ci yéen di al xara te li muy xaar ci yéen mooy ngeen yëkkati diina ji tasaare ko ba diina ji tarapom tasaaroo fu ne bàyyi mu ne yéen ndaw yi yéen laa ci yaakaar kon sama yaakaar boobu maa ngi ko wékk ci yéen di di xaar waaye beneen yaakaar bi mooy seen réew li muy xaar ci yéen wa watanin al mahbubi réew mi te xubbul watani min al iman mu ne kon réew mi li muy xaar ci yéen maa ngi ko yaakaar ci yéen ndaw yi kon maa ngi xaar di séentu loolu ci yéen kon mu ngi doon séentu ci ndaw li mu nekk ndaw loo xam ne dina mën a taxawal diineem waaye ndaw loo xam ne dina mën a taxawal réewam dina mën a taxawal continent moo tax lam doomam yi fexe leen ba jàng Eh, ba jëriñu ngeen enu njëriñ li indi ko ngeen jëriñ seen diine waaye ngeen jëriñ seen réew su ngeen mënta jëriñ seen diine ak seen réew yëpp ngeen jëriñ seen diine njëkk waaye su ngeen mënee jëriñ ba jëriñ seen réew ba jëriñ seen continent maa ngi xaar loolu ci yéen fexe leen ba bu ngeen di ñëw ay xudaat na nekk ci yenn ak ay xeeti nit ñoo xam ne xeeti xam-xam bu ne bu tasaaroo ci ñoom fexe leen ba mu nekk ci yéen te bu ngeen dikkee ngeen indi nafo googu njëriñ loolu jëriñ ci seen diine jëriñ ci seen réew nga gis na kon Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu euh, lim soxla woon mooy ay doomam ay taalibeem ay ndawam nekk ñoo xam ne jëmmi njëriñ la ñu doon comme moom Mawlana Cheikh Ibrahim ni mu nekkee jëmmi njëriñ xam-xam baay tënkuwut ci woon tënkuwutoon ci mag da koo tinki woon ci xoolul kan mooy ndaw xoolul kan mooy mag ki amoon xam-xam rek la bàyyi di jiital ngir xam ne na al ilmu huwa imaamul amali xam-xam mooy jiiti jëf بمي تالف تيرم بوب دي تبصرة الأنام في أن العلم هو الإمام يقمنا نعرف كأتا نينت لام باي وخنا نبقنا جلي تحمى تالف تيرم وي مانكو كو جمالة چي جمانو جي دومي سرين سيغا قمنا دانيو دايلو ديو موي سوي باي تسرين لا سوفي جولي نيو قوتو كورك باي مو كيسنا لولو ألق داي راي جي قم قم داي يقلو بري مو بندو كو نجري يلين ولين نلين نين غور غورلو نجير جيما ساكو خم خم bañ a doyloo doomi sëriñ laa mu ne misaal bi xool ko ci docteur bi lu mën a mën a mën a faj lu mën a mën a opéré su doom ji jàngul médecine su fa bàyyi ju jugee doo dem jox ko sa biir na ko opéré ma kon mu ne it ak sëriñ noonu la mel ngir yee nit ñi ñu itteewoo xam-xam sàkku xam-xam ngir mën a tasaare xam-xam moo taxoon bàyyi waxoon ci benn leetar di wax Seydi Aliou Cissé na ko jumaa ji nañ ko ubbi ngir képp ku am xam-xam bu muy mën a jàngale rek na ko def buñ xool gone la buñ xool mag la fa inni la ara sinna qaydan man cheikh ibrahim gisuma ne at yu néew ngant la ci nit ki bañ am xam-xam wala at yu néew ngant la ci nit ki am xam-xam ba pare ñi xañ ko ngir mu mën a tasaare xam-xamam te boo xoolee moom cheikh ibrahim ba muy njëkk a bind ñaar fukki at ak benn la am kon buñ ko waxoon na ko doo ko fi waxee kon bu boobaa xam-xam boobu ana fan lañ koy jëlee ànd na buñ na ko woon doo ko fi waxee it ndigalal pays yàlla ñëw na ba mu mën a wax ndax Baay wax na ne saqaw nii wa qaalu la tuganni walaw saqawul jibaala xunaynin ma suqiitu la gannati duy nañ ma ba mu fees dell nga ma doo ko fi ootee Baay mu ne liñ ma duy lu tuuteem suñ ko duyoon doji xunaynin ba ca màkk sax mun a doj ba wax asumaane moom mi nga xam ne am na ndigalal wax te am na xam-xami mën a tasaare loolu nga xam ne moom lañ ko jox kon nga gis ne itte boobu nga xam ne amoon na ko ci ndaw yi pour ñu gën góor góorgóorlu ngir xam-xam boobu noonu euh, nga gis ne tënku koon ci benn ndaw waaye da ko yaataloon ci ñëpp ngir nit ñi mën a jëriñu ci loolu kon Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ndaw yi dañoo amoon solo ci moom marhaban bi Cheikh Baye Hadi wal wafdil murafiq marhaban bi ko nga gis ne kon ñi àndoon ak moom tamit ci yar boobu rek la leen bàyyi yar moo waral tukkeem yu bëri yooyu nga xam ne da ko doon def moom Cheikh Ibrahima radiallahu anhu tukkeem yu bëri yooyu ak coono yi ñu ci doon jànkuwanteeg dem ba màgget ba am ngàntal sax bañ a tukki ngir toog ndax yaramam mayetu ko ko ay atam mayetu ko ba muy wër naan daifun alilun shaibun mutahammisun li yansura diina laa yuridu qitaala naan maa ngi feebar maa ngi màgget maa ngi lompañ dem naa ba mënatuma dara waaye mayu ma sama bopp ngant lu tax mayu ma sama bopp ngant ngir tasaare diine ji waaye ngir lan wa ubrisu lil jiilil jadidi bi xeelaat ngir wanit nouvelle génération bi muy ndaw yi ñëwi ji man Cheikh Ibrahima ma nekk seen exemple man mi dem ba nekk mag te taxul ma jël trait ci tasaare diine taxul ma jël retraite ci jàngale taxul ma jël dara ci tasaare mbaax kon ndaw yi lañ ma jël comme exemple ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci jamono ndaw kàttan mi ci ñoom itte min ngi ci ñoom bu boobaa ñu mën a gën a góor góorlu ba ñoom bu ñu xool benn ngant te buñ may seen bopp ngànt boo xoon na doomu xaaj Abdoulaye ne ko soo bëggee noppalu ci àdduna bi sa dictionnaire yi dund dañ ci ciy effacé baati noflaay te xam ne fii noflaay amu ci nga xool boobu du bi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim radiallahu anhu njëkk a ebal ñu jiitu ko ci bërëb yoo xam ne jotul foon a dem lu ci mel ni Égypte nga xam ne bi muy ebal eh, Mawlaay Xaaj Abdullah Taawam Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop ñu ànd ak Chérif Baawali Haydara ñu délégation boobu nga xam ne bi leen di bàyyi di ebal ay ndaw lañ waaye mu ebal leen ñi dem Maroc jógee koo fa dem Égypte dajeeg buur bi eh, dajeeg président bi Euh, Jamal Abdou Nasser dajeeg ay notable yu bëri ngir xamal leen Cheikh Ibrahim ak itteem ak taxawaayam dem boo xam ne moo jiitu dem ak Cheikh Ibrahim Égypte ba bourse yooyu nga xam ne ci la njabooti Mawlaana Cheikh Ibrahim yi jàngee ñooñu ñoo ko lijjanti woon su bàyyi xooloon ci ay at yu néew bu ko noon am na ñu mag ñooñu ñoo xam ne mën na leen a waaye dafa teel a responsabilité ndaw yi pour ndaw yi euh, mu ñu am fit xam ne ñoom ñooy avenir yi ëllëg te ñoom ñooy yaakaari ëllëg te bu boobaa soo defaree sa ndaw rek sa ëllëg dafay baax nga xool bàyyi ak ñim àndatoo nag ba tey ci bàyyi ak jeunesse bàyyi ak ndaw yi wax naa sànq ne ñim àndatoo nag daanaka ñu ci newuñoo ko ci magoon ci njëlbeeni daawaam waaye ñi ci des ñépp moom Cheikh Ibrahim moo leen magoon te boobu moom amagut fanweeri at ndax mi ngi ci ñaar fukki at ak juróom-ñeenti di dugg fanweereeli atam ci bii muy oote faydu bi ñi àndoon moom ñii ñaar fukki at ak ñaar ñii ñaar fukki at ak juróom ñi ñaar fukki at ak juróom-benn euh, nga gis ne génération boobu àndoon ak moom nga xam ne moom Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu moo leen magoon taxutoon mu may boppam ngant. wala taxutoon it mu ne ñii ay ndaw lañ waaye tero daf leen a teel a responsabilisé ba ñooñu la joxoon cër yu kawe yooyu nga xam ne ci lañ jaaree ba tasaare faydu bi ba mu daj fu ne ci àdduna bi kon bu bàyyi waxoon na ñi ay ndaw lañ ba responsabilisé wu leen ndax dinañ mën a liggéey liggéey bu rëy bii nga xam ne moom la moo Mawlana Cheikh Ibrahim tasaare ci kaw suuf bi muy aji ajam gu njëkk 1937 nga xam ne dem na di tàggoo ba bañ foog ne bàyyi mi bu demee du delsi ba mbooloo mi di jooy bàyyi na leen sama ñib si laa njëkk a gis ci sama dem sama ñib laa njëkk a gis ci sama dem waaye su ma fa desoon it du tax sama mbóot jërmel ndax bàyyi naa fi ñoo xam ne lépp lu ma nammoon ci def ko ci jamono def naa ko ci ñoom ñoom dinañ ko mën a tasaare ba mën a tasaaroo ba daj fu ne kon nga déggee ci ne moom Cheikh Ibrahima radiyallahu ci 1937 kon ñi kon à ñi mu àndatoon nag ñu ci bëri ci ñu ngi doog ko dugg ci ay fanweeri at fanweeri at ak lu teg te bàyyi nee na def naa ci ñoom loo xam ne su ma desoon ci aj gay du tee dinañ mottali mission boobu kon nga xamee ci ne dafa teel a préparé ndaw yi waxutoon na ay ndaw lañ nañ xaar ngir dee xamul mag xamul ndaw waaye ngir njëriñ tënkuñ ko ci ndaw tënkuñ ko ci mag waaye njëriñ dañ koo tànk ci doomi aadama moo tax Cheikh Ibrahima amoon itte boobu ci doomi adama yi doon def ci ñoom xam doon def ci ñoom jub waaye rawatina ndaw yi ngir xamoon ne ndaw yi ñooy avenir te ñooy yaakaari ëllëg te moom Cheikh Ibrahima radiallahu anhu doy na exemple ci ndaw yi koo xam ne bi muy oote faydu ñaar fukki ak juróom-ñeent la am bu oote woon faydu rek ne man maay saaxibul fayda em ndax faydu bi dina egg fi mu yegg yëpp déedéet waaye bi muy oote faydu bi da cee boole garanti ne faydu bii yàlla jox ma wal faydatu ta'ummul arda dinaa ko tasaare ba mu daj mboolee bi suuf su ko waxoon tëdd nelaw ndax faydu bi dina tasaaroo déedéet waaye da koo jaral mu am ittee jël faydu bi tasaare ko amul fu doomi aadama du nekk nu du Cheikh Ibrahim fekk na dafa ngir jëriñ la ci faydu boobu kon mi ngi jàngal ndaw ndaw yi itte xam-xam loo ko am lu mu bëri bëri te amoo ittee tasaare ko amul njëriñ ndax xam boo xam lewut ba nit ñi jëriñoo ko amul njëriñ moo tax faydu bi bi mu nekkee jëmmi njëriñ it Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ci atam yu néew ci jamono bu jafe tukki jafe lool ci la doon tukki di war avion yi di jaar ci géej gi di jaar ci saxaar si bay melal ay tukkeem naan alawtul bihaara zaxiraati وإنني علوت القرى والبدن بل الجبال jaar naa ci jaww ji jaar naa ci ndox mi jaar naa ci suuf si xeeti wasaayil naql yëpp yéeg naa ko waaye li waraloon loola mooy wan ndaw yi exemple exemple boobu nga xam ne moom la wan ndaw yi ci la nekkoon moom Cheikh Ibrahim ba ci la tasaare faydu bi ba faydu bi daj mbooleemi àdduna ay kuréeli kuréel topp ko nga gis ne kon loolu moom la Cheikh Ibrahim soxla ci ay ndaw yi ñi itteewoo loolu ngir kawe la may tëjee mooy lettre ba mu ne leen jéem leen a góorgóorlu yëkkati seen itte su ngeen ko defut maa ngi seen ay ndaw yoo xam ne ñi ngi ñëw ànd ak itte ju kawe joo xam ne su ngeen yéexee rek ñooñu buñ dikkee dinañ leen raw te gàcce la aar la ci nga jiitu nit ki ci dara ba pare mu ñëw raw la nga gis na kon mu ngi doon wane ne jiitu nit ki ci dara mu ñëw raw la gàcce la waaye bàyyi ma ngi cee melal na maa ngi gis ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ñëw kon ku ne ndaw yi bàyyi nga rek boo bëggee meloo melokaani ndaw yooyu fexeel ba itte boobu bàyyi waxoon na nekk ci yow yu dëggu yi nga xam ne yàlla rek moo leen itteel ndaw yooyu nga xam ne ci njëlbeen ak Cheikh Ibrahim ñoo àndoon ak moom ba na fa inna hunaka shubaanan sigaaran qad nasu taama shahawaati maa ngi ndaw yoo xam ne ay lañ waaye dem nañ ba fàtte caf kay bànneex bakkan ngir bëgg yàlla ngir jeex ci yàlla ngir itteewoo yàlla ba duñ tàqalikoog man ba am na ci ñoo xam ne am nañ ay soxna waaye pour ñu dem ci seen soxna yi sax maa leen di jox ndigal waaye bil ikrah dañuy dem sax te duñ bëgg a dem ngir bëgguñ maa sori ngir jeex gi ñu jeex ci yàlla ndaw yooyu la Cheikh Ibrahim soxla kon ku bëgg a bokk ci ndaw Cheikh Ibrahim yooyu danga am surtout muy dëggu da nga am mahabbatu muy mbëggeel waaye da nga am eh, itte ju kawe kawe kawe ndax Cheikh Ibrahim lim ñu indil itte rek ci koy jëriñoo waaye ci itte rek nga mën a am ngir mën koo tasaare ba mu law ba daj mboolee mi suuf te bàyyi lim ñu jëriñ ñëpp daf ñoo waxoon ne nañ góorgóorlu ba bu mu yem ci ñun waaye nañ ko tasaare وقالنا نؤزيل الغلافة عن أمة محمد فيرفعون التوحيد في كل موطن دماء نيو نغير دندي كيراي بي أمة محمد بان جيخ تي الله واي بون ام فوفو كوم ني شيخ ابراهيم تصاري فايد بام داج مبولم غوخ با واخنا با سيغي نيو لن تراو سوا عارف بالله والشرع متقن كوغن غيس رك عارف لاي دون ميسيون بوبو سي نداوي لا اديو نيوكو ورا ba bés boobu Baye waxoon na mi ngi ñëw te lu baay wax dina ñëw koo xool gis ne aarif la yal na yàlla boole ñu ñu ñëpp ci ndaw yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullah